que ne ñaari posé nga ma question sànq nee nga ma bi la Macky sal di tànn comme secretaire national chargé de l'organisation et de la diaspora xam na ne yow bëgg nga. la mobilisation. candidature mais li ma ci mën a jàngat. Macky Sall ne m'a jamais dit qu'il est candidat ba jusqu'à mais xam na ne maa ngi ci liggéey te loolu xam nga ko xam na ko. kuy liggéey loolu xaaral xaaral xaaral rek kuy bayloo nit bëgg mu récolter. mais il y a dans le gouvernement. même. ou bien dans le régime déjà qu'il a nommé xam na ne ñooñu ci suuf dañuy ngarale te terewul ne ne mu ngi leen bàyyi foofu di leen nommé. ah bon vous avez ah, identifié des gens yoo xam ne. du ñàkk euh, en politique ñëpp bokkuñu position. je suis je suis sûr que nag la majorité de l'APR ou de Benno sont pour sa candidature mais là là là il y des gens il y des gens xam nga ne ba mii su ma waree wax wax tur. ci digg bi laay def. Euh, des gens yooyu ñan la. non non non yow tamit man je suis pas venu pour ça. ñëwuma di bëgg tas sama li may dox. man mënuñ maa confier secrétaire chargé de l'organisation de la mobilisation. may may tas ñi léegi mon devoir. Ah. xam nga loolu Macky Sall jox na ma confiance mais pour man du ñu ko Sénégalais di jàngate laa ko jàngate noo ko jàngatee. am naa mission. ku mer. Hmm. ku frustré. Hmm. ku ma doon xulool sax nga xam ne bokkuñu conviction ay idées ku ma doon jàppanteel sax. kon kon di nga wàññi histoire yi. obligé. parce que da nga bëri histoire ci Matam de. non xaaral rek bëri histoire bi xam nga lan la man bëgguma ko jouer <laughs> te y de des gens qui jouent day xam ne dañuy jouer mais bàyyi lañ ci biir c'est pas moom bëggul jàndi nit man nag loolu laa dul supporter mais tey def ma sa mission secrétaire national chargé de l'organisation de la mobilisation comme a dit Amadou formaliser la. mais il toujours confié les mobilisations ba ci ba ci